بي طاب الإله لآدم وبالخليل نجا من النيران يا من بي

muy lan tàkkusaan bi nga xam ne moom lañ daan def at mu jot muy tàkkusaanu Dabakh Jamil ren ji jàpp nañ ko la 4 mars inchaa allahu fële ca caaro yi am da laykaat ca bayaalu jàkka jàpp ci teewaayu kan sëriñ papa abdou si moom mi nga xam ne lu jiit njaaga moom mooy njaaga jàppaat na ko te moo ko fas yéene teewee comme na mu ko daan defee at mu jot ñu ngi ciy woo mbokk yépp bu ñu xëyee nag inchaa allahu dañ def nañ daan def jàng kaamil ah def ndékki bu ñu demee ba ginnaaw tisbaar ñu añ gannaaw tàkkusaan nag 5 fu mu jotee inchaa allahu man mii di wax ak yéen danaa fas yéene taxaw foofa ibbi jataay bi teel suñu soppee suñu xarit Abdal Aziz Ndiaye ba mu yegg seeg jàmm inchaa allahu ah ñu ngi leen ci woo yéen am nañ nag ki nga xam ne mooy Sam di soppey addina mooy invité d'honneur bi kon nag ñu bàyyi Seydi Jamil mu yeggale waxtaan wi incha allahu macha allah comme ni ko Amin waxee bis ngoog ñun ñëpp ñu bàyyi si xel le 4 mars incha allah ñi si woo waa Caaroy am dalay kaar yëpp rawatina sunu imaam yi fane ne alaaji Malick Sow alaaji Malick Guèye di si woo sunu mbokk daayira yi daayratul iman wal bina mudahabina fillahi daayratul wasilatul munna axyaar ahbaabu Tidiane di si woo soppi Serigne Babacar si ak ahiba bu Sérina Cheikh di si ñëpp di si woo nag sunu Serigne sëriñ Bachir si bu sëriñ Mansour Dabaax di si woo soxna Tabara si bu sëriñ Pape Abdou si di si woo waa Ndar jiital si sunu nijaay Abdoul Aziz Diagne di si woo waa Mbour waa Kayar soxna Ndawa caw ñoo ngi ko si woo waa Italia ñoo ngi leen si woo waa France tamit bàyyi ñu kenn comme ni ko la Lamine waxee di si woo nabien yëpp waaye nag di si woo sunu yaay yëpp yi nga xamante ni ñoo ngi caaro am dalay kaat di si woo jeunes yi nekk caaro am dalay kaat particulièrement waa Ramadan yëpp bis baa noonu incha allah si teewaayu Serigne Papa Abdou si bu Serigne Maodo Sy animation yi Mouhamadou Lamine Sow ak Abdou Aziz Ndiaye ñoom ñoo koy yore waaye nag sunu invité d'honneur Serigne Sam Mboup ñoo ngi ko si woo incha allah di si woo mboolem ki nga xamante ni nii rek am nga yéene si bis di si woo monsieur le maire mbay seen ñoo ngi ko si woo di si woo Aline Bey maire jàmm gën si Kambaaw di si woo notable Ismaïla Pouy chef de quartier Hamdalaye 4 di si woo daayira yëpp ak jamiye yëpp di si woo soppe yëpp incha allahu taala ñun ñoo ngi ciy xaar ñëpp incha allah la 4 mars foofu sa caadoy am Hamdalaye 4 di si ànd ak waa Ndaanaan TV bis baa ngoog xam naa ne information yi ku si woote 77 222 29 62 di nga si jokk ak ñun incha allahu taala loolu moo nekkoon kàddu yi asalaamaaleykum wa rahmatullah أزكى صلاة صلاة وتسليم تسليم على على خمر من نور نيل ما نلنا من الوان سمام أزكى صلاة وتسليم على خمر من نوره وصحبي أمين أقمال الخفات ومن سبيل قبله سلق ربي من الأبرار